al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum sëñ Xabaan maa ngi nuyu baax di ziar di nuyu sëñ El Hadj Demba di ko sant baax ci kàddoom yi dama jël benn ojom ci groupe al ibaadatu wal ma di ko jaajëf bu baax mu am nag lu am solo loo xam ne laaj na ko fa te itam xam naa ne li naan préoccupation maanaam lu xaw a jaaxal askan wi la bëgg tuuti ay leeral ak aw yoon mooy nit ki am hôpital malaatam malaatam ca hôpital ba bëgg ci ay renseignement xam malaatam ndax mi ngi tane wala ndax li ko dal lu mën wér la walla ndax mi ngi ci yoonu kuy faatu gis na ne médecin yu bari jot gi war a jël pour mën a toog waxtaan ceeg mbokki mi bi xam na leen a jafe loolu moom wax dëgg yàlla lu ñu seetlu la ñun ñëpp xëy na jafe-jafe bi ñu ci xaw a am tuuti mooy léeg-léeg nit nga yor malaat say loxo yow docteur bi nga xam ne malaat bi kat yoon yu mu jëm yoonu kuy dem la nga bëgg a gis kenn ci mbokki waxtaan ci moom ndaxte li ñuy mën a wax malaat bi ci boppam léegi nag léeg-léeg ki nekk moom soo ko laajee ne ko loo bokk ak malade bi léeg mun na sama dooma wala mun la sama baaya wala mun na sama soxna nga tëjoog moom expliqué ku lépp bañ jeex takk bu nee ba ci cëppaandaw ja mu ne la ah léegi xaaral ma woo diw mu ñëwee nga leeral ko lii ndax man rakki baayam laa wala man magi soxnaam laa wala yoo maanaam da nga doog a xam ne daal dëggantaan la ma waxoon ne moom la bokk ak moom wax ni wolof la waaye bukkiwu ko moom mu daal nekk lu doy waa ndax su boobaa da nga obligé wax wax ko ñaar ba ñett ba ñeent te loolu mën na tasaare feebaru jàmbur nit ñi yëg ko loolu daf ñuy daal lu baree bari la nga jël sa temps lu ma une heure temps di wax ak nit di ko expliquer di ko leeral bu jeex takk mën la ah xaaral ma woo diw nga leeral ko ko diw moom woo la nga wax a wax ba doyal ci suba sa nga jekk-jekk délégation ñëw lu mel ñaar ba ñett ba ñeent ñëw sa bureau ne dañoo ñëwoon pour xool euh, wut si ay renseignement ci sunu malade moom fu mu toll ndax du mën a wér la ndax suñ ko yóbboon Dakar wala ndax suñ ko yóbboon bitim réew te fekk lañ ci waroon a wax lépp wax nga ko ba noppi soo leen ah ma jot naa ci waxtaan ak diw de ñu ne waaw waaye waxaat ñu ñu gën a dégg rek mu ndax mu gën a leer ndax moom laaj nañ ko waaye waxuñu dara lu leer nga xam ne kook la ko waxoon lépp moom da ko daal denc bu ñeen laajee bu ko mbokkee laajee sax naa leen ah man ne docteur wax ma daal lu leer te fekk yàlla xam na ne wax nga lu leer nañi yooyu mooy jafe-jafe yi nga xam ne léeg la ñu teg moom kon nag tegtal yi mu ci joxe wala ci aw yoon mooy ku ci am sa malade te nga xam ne yaa yor kilifteefam wala daal responsabilité xam ci état am fu mu toll wala lu ko dal ak fan lay mujjee yow yaa am responsabilité bi na la jëlal jël sa temps ñëw hôpital li ñu waraf naan ku jul xaar yaay xaare su boobaa nag kon nga ñëw toog xaar médecin bi bàyyi ko ba mu amul jotam mu jaral la nga yenn fa wala mu jaral la nga toog fa takku saanug lëm ba mu am jot nga wéet moom ne nag docteur dama bëgg na xam kii nangam laa bokk ak moom wala responsabilité am ci mën na nekk yaay sëriñam wala yaay borom këram wala yaay nijaayam wala yow la yàlla dimbali ci njaboot gi nga di leen taxaw ci sa kom koomu bopp nga wéet moom laaj ko mu li ci nekk lépp su boobaay itam nga fexe ba xam nooy toppatoo information boobu ba nga xam ne ku ci war a jot man cee jot ci nanga nga ko waxe ku ca warta jot bañ cee jot te keneen bañ a mën a amal buntu siwaat di ko laajal docteur bi ndax loolu moo tax ñenn ñu ñenn ñi di découragé yenn médecins yi di découragé ci joxe yenn information yi ba léeg-léeg ñu bëgg am lool ku ñu waxal waaye dañ ko denc ay fan fan nit ay nit nit ñëw di laaj ñu ne ñu du ñu nangoo wax ba dem ba xamal seen bokk ni diw mii su ma ko waxee mooy ki nga xam ne war naa wax ak moom ñu doog ko wax kooka moo tax léegi gis kuñ ko bañal fekk médecin dafa ñaaw njort ci yow ne su la ko waxee da nga ko siiwal wala su la ko waxee itam keneen dana ñëwaat laaj ci ko fii xelam demul ba ba xelam dal ci ki nga xam ne moom la yaakaar ne moom mooy waaja daanaka yow mën ngaa nekk waaja sax te fekk moom jàpp ne doo waaja maa ngi jégalu baax ci kàddu yi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum maa leen nuyu Euh, wàllu machine bi nga xam ne mi ngi ci biir téere seen yi boobu di xoolatul ay ni muy téere boo xam man ma leeral na ci laa jàng diine lu bari ci laay nafare ci laay nafare lu bari bari sama diine numa ma koy ja ma koy doxale da ci bari yoo xam ne sëñ bi da koo indi jële ko ci docteur njëkk ya am na ci yoo xam ne xëy na tontu yee ci war a ko du ma ko xam day xam-xam yu xóot lool am na yoo xam ne nii docteur yi njëkkee ko doon seetlu li ñuy wax constat la maam dem ba seetlu seetlu biir seetlooti ko ba tax ñu génnee ko xëy na bii jëm ci wàllu euh, bul xiif di jaxasoo loolu moom ak bul rekk ba sa biir fees di jaxasoo yooyu yow mën a xam ndax boo xiifee mooy manqué nga énergie te yaakaar naa jaxasoo ni ñu ko waxee ci wàllu médecine am na ñu koy dëppaleeg daw lu mat daanaka juróomi kilomètre kon nit su xiifam bëgg a daw lu toll noonu dana sonal boppam regg di jaxasoo itam liñ ci mën a gisee foofu mooy nit saa bu reggee xolam mi ngi commencé di accéléré wu ndax dafay def li ñuy wax digestion maanaam biir bi mbàq gi day commencé liggéey mel ne machine wal di liggéey liggéey boobu muy liggéey day laaj nag énergie bu baree bëri day laaj essence comme oto bi muy soxlaa essence su boobaa nag léegi ndax xol bi itam day accéléré wu di yokk vitesse am ngir mu mën rey seen ñam yi loolu tam boo ci dolliwaatee nag kon di jaxasoo mën naa fitnaal xol bi tuuti yokkaat ji tam yëngatu ngi ni kii yëngatu nga xam ne bu biiram feesee mën na ko jural sax wàccu wala mu jural ko baax ko yëngatu fu ne loolu yëpp moo tax ma is naa jàpp ne lu lu baaxul la naan lu sedd guddi itam waaw mu wax dëgg yàlla mënu ma ci am tontu bu leer ndax mu ngi dépendre ci ku nekk fa nga dëkk ndax boo dëkkee fu tàng naan lu sedd mën naa tax nit ki yaramam xaw a féex tuuti waaye comme jamono ji ñu toll nga xam sedd la wala nga dëkk fu sedd naan mu sedd guddi yaakaar naa amu amu si njëriñ lool loolu daal amoon nag tuuti ma ci amoon na ci ay leer jërë ngeen jëf bi moom leer la ma noppi. asalaamaaleykum suñu xarlaan maa ngi nuyu baax di ziar waaw waxtaan wi de moom mu ñaari pàcc bi moom lépp leer na yaakaar naa amatuñu ñu ci jaar <laughs> gën a gën a gën a leeral wetu càmmoñ gi soo lekkee woon moom loolu. lu lu jar a xam la ndax nit mbàqam dafa nekk ci côté càmmoñam nekk suufu xolam suufu wenn càmmoñam ba tax na bu ko tëddee ci la rees bi di gën a taaju que bu tëddee côté ndeyjoor ndax bu tëddee côté ndeyjoor dafa mel ne ak satala satala am na noo koy tëralee bu jëmee wute bu féeteeg baat bi ndax ma dee tóoru bu téenee mu mu mu taaju mu gën ko téye noonu la mel satala gi nag bu doon ak satala solom bi day mel ne moo nekk day ndeyjoor kon soo ci tëddee day mel ne da ngay tuur li nga lekkoon liy duy liy duy ndox mi mooy nekk côté càmmoñ kon soo ko téenalee mooy gën moo tax jaaxaan gi ak tëddee côté càmmoñ bi noonu mu ko waxee ci téere bi noonu moo gën ci nit ki tëdd gaaw a reesal ñamam bañ na ko ba sax nit saa bu amee accident sax suñ ko suñ ko dee tëral dañ naan nañ ko tëral li ñuy wax dëkk bi de euh, position de sécurité waa maanaam nañ ko tëral côté càmmoñ bi moo gën ci moom ndax xool bi côté càmmoñ la nekkee te itam xëttalu ndeyjoor noykaay gi xoor bi da euh, xool nañ koy xamul bu bëri sax tiwo bi nga xam ne mooy indi ngelaw daal dafa def directement jëm ci côté ndeyjoor bi bu dee côté càmmoñ am na angle angle boo xam ne mooy tax nit ki comme xale ni saa boo nee dara su suy jàll ñaar ci côté ndeyjoor lay dem ndax day benn bu dem moo tax nit su accidenté comme wóoruñu ne ba xam wan na daraam déet seexoon na dara lu mel ne ab tàngal wala wala ba ñu poosé wala yooyu dañ naan tëral ko côté càmmoñ moo gën ndax foofu raako dafa lemu dafay jàdd waaye soo ko tëralee ndeyjoor soo wanee daal day daal ci xëtër ba moo tax tëddee côté càmmoñ moo gën ci ko accidenté moo gën ci ko reer ba sa biir fees tam jërëjëf waaw sëñ xaban maa ngi bu baax la ziar waaw bind bii de moom mu tee sëñ change bi di wax ci naan am ñollu ak yooyu li ma ciy tënk rek mooy lépp loo xam ne daal lislaam tere na ko doomu aadama soo ko gëstoo ba ci biir lor am na ci wàll wér-gu yaram lor dana am feneen sax waaye man li ma wóor mooy lor am na ci wàllu wér gu kon naa am ñollu moom leneen nañ ñu moo gën a gaaw ci rey nit ci yàq resam ak yàq pancréas bi nga xam ne mooy réglé lépp sukkaram ak ak yàq ay roñoom donc li ñuy wax organe noble buñ ko doon wax ñaan gërmi cëru gërmi yi gërmi yi dëgg ñu xam ci juróom loolu daf leen di yàq waaw yàq yóor gi ki moo tax màndikat di dof def yëfu dof yàq ay bët yàq roño yàq res yàq xool moo tax yooyu moom dara baaxu ci ko bindee